axlan wa saxlan ana lan la yéen a yi xëyee fekk leen ma ci tribune yéen a yi moom mi xëy ci poste premier ministre bi njiit réew mi Macky Sall war a tabb ci gouvernement bu yees bi ñuy xaar ba xolam sedd ubbil yéen a kaay bi yéen a bi di ñu xamal nañu ak njuumte la njiit réew mi Macky Sall def de aha maa la ko wax ma ne la kay élection locale yi ba mu jeexee rek la waroon a taxawal gouvernement bi yéen a kaay bi biral daan na waaye combat ba jeex na de daanaka semaine bii nga xam ne moom la ñu nekk balaa jeex dinañ xam mooy premier ministre bi ministre yu bëri njiit réew mi Macky Sall tey jii wóolu na leen ca pale ba dij leen fa séenee séq ak ñoom ci waxtaan woowu nag ci la njiit réew mi Macky Sall war a sukkandiku daal taxawal gouvernement bu yees gi waaye gouvernement googee li ko gën a tardeel bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a gagné ci seen gox de ci élection locale yi wal fajir yéen a kaay tëll ñëw ci élection législative yi ba xolam sedd ak jàngat bi nga xam ne moom la ci amal nee na nag boo gisee affaire yi gën a yeex li ko waral du lenn lu dul yi nga xam ne ñoom la acteur politique gannaaw ñu bëri bi nga xamee ne lajj nañu sélection locale yi nga xam ne moom la ñu génn bii nag moom dañuy booloo doon benn fa séen koo gañe waaye nag jóg gi moom pour gañe ca njël la da ngay teel a jóg pour mën a gañe lu ko mooy rek yi wër la ndomba bés bi la jour yéen a kaay tëll nee na lu ñeel parrainage bi ak li nga xam ne moom moo di caution bi njiit réew mi Macky Sall waxtaan nag Antoine Félix Diome moom ministre bi ñu dénk intérieur moo taxit mi ngi ci xër mu njëkk yéen a kaay bi di yëkkati dëggam yéen a kaay bi biral daan na Félix Antoine Diome ci boppam joxe na bis de nee na ajjuma ji nga nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañ dajale mboolem politiciens yi moo xam ñu faree ci nguur gi wala ñu faree ci kujjëg politique gi ñu daal di waxtaanee loolu le tey mooy yéen a kaay tëll daan na loo ci mënti dégg kujjëg politique gi moom am na si ñuy nelaw de ci waxtu woowu nag njiit réew mi Macky Sall ma ngay profité di jéem a jege ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Sénégal ndax ba ñu jugee ci coupe du monde bi ndaw ñëpp kontaan ci moom ñu ne déet ñu daal di inauguré Abdoulaye Wade stade bi nga xam ne moom lañ ko tuddee ndaw yi tamit gën koo bëgg njiit réew mi Macky Sall ngay dugg ci xolu sénégalais yi ci boobu waxtu ku jëg politique gi moom jamono ji kenn déggatul seeni benn activité docteur Abdoulaye Sanokho yéen a kaay bi dalal ko muy wax leen la senegale yi def ba nar a dugg si xolu njiitu réew mi Macky Sall nee na nag li ko sooxe du lenn lu dul coupe d'Afrique bi nga xam ne moo ñëw ci biir réew si biir yéen a kaay bi muy biral daan na looloo waral nag ndaw ñu daal di gën a jege njiitu réew mi Macky Sall ku jëg politique gi si woowu waxtu kenn déggu leen te loolu nag seen defet bu mag la ndax nag ñi ngi jëm say élection l'observateur yéen a kaay tëll bind ba xolam sedd si njàng mi ak njàngale mi ak jafe yi moom dund ma ne la yow gis nga tey jii école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si département bu ndakaaru ñëpp tey dañoo nar génn ci mbedd mi di wane seenu naqar yéen kaay bi biral daan na mars boobee nag la koy sabab lu dul état bu Sénégal daa di gestu ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi ba élèves yi mën a delluwaat seen biir école yi lu tolloog si ñetti téeméeri waxtu yoo xam ne si élèves yi perte nañ ko de maanaam kenn jàngiwu si loolee nag lu metti la yéen kaay bi biral daan na yi waxtu yi nga xam na toog nañu demuñu jàngi benn yoon bu ñu sàgganee dinañ leen jural ay jafe-jafe bis bu ñu reprendre te lii quotidien yéen a kaay tëll ñëw ci xiiroo ŋaayoo ga ak xëccoo gu metti ga amoon ca Kaolack ubbil yéen a kaay bi Pape Demba bi tey ak Ahmed Benzeloum sa conseil départemental ba xëccoo gu metti fa amoon Pape nag nee na recours bi nga xam ne dugaloon na ko waat na ko de li ko sabab du lenn lu dul nee na jàmm gën jamaata jàmm gën jàmmaarloo looloo tax nee na bàyyi na lépp mu set vox populi yéen a kaay tëll daan na xeex ba nag jeex na Pape Demba bi tey ci boppam delloo na recours ba njiit réew mi Macky Sall moom moo fa jaar moo fa dox jàmm ba jàmm ñëwaat daan na nag wax gi jeex na waa ànd nawle ay heure yu ndaw moo leen dese ñu daal di installé seen président conseil départemental l'info yéen kaay tëll daan na àjjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal marche bu mag la waa wàllu Sénégal woote de aha maa la ko wax ma ne la marche boobee kay bàyyi wuñ ci kenn ñi ngi ci woo mbooleem ku faree ci ku jëg politique gi bu ñu sàgganee nag dina yëngu de ca diwaanu Pikine nangu giñ fa nar nangu seen ndam li loolee leen metti looloo tax ñu ne duñ may dara waa Benno Bokk Yaakaar dinañ wàcc si mbedd mi yëngal Cheikh Dieng jàll de dina ko topp ba mu sës te nag moom lu ci gaay yi bañul bañu ko ci ndax ñii nag moom xamuñu masla kuy defanteek ñoom dong la ñu xam hey mbay kon daal loo ci mënti dégg coowal élection locale yi ba léegi rëggagul maanaam coow la daal jéexagul ba léegi ñu ngay ruumandaat waa baax na ba suba